Euh, ngir daal jàmm ak tegmennaay yi ak ñii di euh, ki nga xam ne moom mooy euh, chef rebelle boobu di César Atoute Badiate àndoon ak ak délégation ak beneen émissaire boo xam ne jiitu réew mi moo koy yebaloon ñoom nag signé woon nañ kon accord boobu ci kanamu président bu Guinée Bissau nekkit président en exercice bu CEDEAO wante nag dafa am ñeneen ñoo xam ne kon dañoo nekk biir MFDC ñoom sax ñu ne ànduñu. ci boobule signature euh, ñooñu nag euh, ñoom ñooy waa bureau euh, national bu Mangoukoulo ki nga xam ne nag moom la ñuy woowee Amidou Djiba di seen porte-parole kon démb wax moom moo wax ci kanam journaliste yi ne daal ñoom boobule accord engagé wu leen te ànduñu ca tey ànduñu ca suba. ñi dëkkee nag euh, dëkk bu ñuy wax euh, Wandoubougou euh, nekk ci localité bu Thiel fële ca département bu Linguère fi mu nekk nii nag mbir mu day waar kon la ñuy dund ñu ne nag foofu nag ab borom kër moom moo fa faat doomam ki ko def nag ñu ne mu ngi wuyoo Sow ñu ne nam faatee doom des bi tamit taawam fetel la ko dóor mi nag mu ngi am démb ay 17 heures di jot foofule eh, ca dëkk boobu kon tudd eh, Thiel ñu ne ba mu defee mbir mi ba nag eh, sax dafa daw ak ngànnaay ba ñu ne nag bu ñu sukkandikoo suñu naataango sénégalais bi ñu ne nag bii mooy ñaareelu yoon ki nga xam ne moom mooy Mamadou Sow di faat bakkanu nit. ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci collectivité territoriales yi muy maire yi ak ñoom seen ñoom nag ñu ne daal dinañu sumb ab. Euh, marché bésu tey bi kon dinañ amal ab euh, marché gannaaw bi nga xam ne nag dañoo bëgg li nga xam ne moom mooy euh, seen nekkin ak seen liggéey daal nguur gi xoolaat ko tey dañoo bëggit nguur gi daal gën xool ni muy doxalee maanaam ci fonction publique bi ni ñuy fayee salaire ñu jéem kaa yemale ñoom nag kon boobule marché dinañ ko amal bésu tey bi bu ñu mayul nag loolu dina indi gàllankoor ci li nga xam ne moom mooy euh, mairie yi ak kayit yi nga xam nit ñi dañ ko fay uti bés ne. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ci réewu Mali foofa nag euh, ki nga xam moom mooy colonel Abdoulaye Maïga te nekkoon euh, ministre de l' administration territoriale ak parole du gouvernement moom la fal premier ministre bu négandiku. mu nag uutu ki nga xam ne euh, moo nekkoon ci poste boobu di Cogel euh, Maïga Cogel Maïga nag moom euh, fukki fan a ngi nii nga xam ne kon dañ ko hospitalisé ci benn clinique foofu ci Bamako gannaaw bi nga xam ne daal dafa tawat ñi di autorité malienne yi sax ñu ne ñoom ñoo ko forcé ngir daal mu am noppalu boobu gannaaw bi nga xam ne sax ñu ne dafa am. Euh, yaramam kon dafa jage di ñu nag lu toll ci quatorze mois dafa liggéey liggéey bu am solo boo xam ne sax noppal noppal wu ca kon ba tax nag ñu bëgg kaa noppal xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy fële ca réew Ukraine foofu nag ambassade Amérique ba fa nekk dafa woo ay doomi réewam ne leen daal dañu jóge euh, dëkk ba ci sax lu amul xaar ñu ne li ko waral nag ñu ne ñoom dañuy ragal daal fan yi ñu jëm ñi nga xam ne ñoom ñooy soldaaru Russie yi euh, dóor ay bâtiment euh, yoo xam ne sax ay euh, bâtiment civil la wala ay bërëbu liggéeykaay loolu tax daal comme ñu ne seen doom la ñu jóge foofale ca Ukraine dañ koy jeexal xibaar sport équipe nationale basket Sénégal nag ñoom ci préparation yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci mondial 2023 bi démb nag match bu mujj bi dóor nañu ki nga xam ne moom mooy Égypte ci soixante quatorze à soixante dix gannaaw loolu nag kon euh, dem nañ fële ca Tunisie nga xam ne sax euh, fa la ñu war a nga xam ne moom mooy quatrième fenêtre bu éliminatoire bu mondial basket deux mille vingt trois boobu. combat bi nga xam ne nag euh, moo war a dox ci diggante Tapha Tine ak Bombardier bi nga xam ne sax kii di patron bu arène. kii kii di patron kon Building Production taxawal na ko le 18 euh, bi ñu génn le 18 août a ne nag am na date xaat date ba nag euh, moom mooy jàpp na ko le 12 février 2023 moom moom leen di promoteur bi sax euh, nee na kon Alioune jot na dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité CNG ñu yor wàllum lamb ji ngir organisation boobu les combat lii la ñu indoon tey ci ay xibaar dafa seen teewal ñu leen jox daje ëllëg yaa ngi